sant sëñ Moustapha Mbacke imam borom saam di sant sëñ Moustapha Mbacke imam borom saam maa ngi nuyu àdduna leen wax ne nag pare naa pour bëre tane naa naka loxo bi mi ngi tane bu baax a baax a baax waaw sëñ Fallou Fall ma siy ñaanal waaw di sant sama benn jigéen mari yaay Fall bi borom buroog tooy borom buroog akara yi kooku du ma di ko sant dal bonde ba léegi mi ngi lay xaar dal bonde day xaar ndax man sama bët am na feneen fu sama kanam amaana na liggéey rek mais man maa ngi daal xaar combat bis bu ñu ma jox nag ma bëre. comme ñan bu doon suba rek. Bou Siteu Aliou Fatfat. Bou Siteu Aliou Fatfat ñoom ñëpp. laam boole Bou Siteu am na combat moom. Bou Siteu ah ma doon na bëre. am na combat na ma jël kon na ma Aliou Fatfat jël. waaw barki maam Seera Faye avance Alaaji Mbaye bi ñu ko joxe ma lekk ko. Alaaji Mbaye ba. billaay wala. loolu tamit yàgg nañ kaa dégg na Alaaji Mbaye. kon moo la wan ni man sama bët maanaam teguma ko sax maanaam si ay booy dal bonde lamb la rek dañoo war a bëre te dinañ jaje mais daal yàlla baax na maa ngi daal waa Louga waa Touba waa àdduna daal lañ ma ñaanal rek jàppale ma waaw boo ma Laurent mi ngi ñëw Laurent bari xam-xam